toog di leen saytu di leen xool vraiment am na tiraillement yu bari yoo xam na ni lii waruñu koo def lii du seen cër. ñoom ñi le dañoo jàpp ne coow lu bari ci biir coalition yi seen intérêt bopp kese la ñuy ut. seen intéret bopp rek ngay gis ñuy wax képp ku fi taxaw di di mbeppi mbeppi sa bopp nga fi nekkal nekkuloo fi euh, euh, sénégalais yi. tubal du am du am les femmes sont plus honnêtes que les hommes man maa la wax loolu les femmes sont plus honnêtes ñoom ñoo gën a jub ñoom ñoo gën ñu dénk leen mbir ma euh, ville ou bien même bu dee réew la sax les femmes sont plus honnêtes. tamit euh, waa euh, ñi xëccoo mairie yi dañu war a bëgg bu ñu bëggee tey population yi topp leen dañu war a nekk ci service population yi. ñoom ñi la di xamle ñu ngi observer situation bi te ñu ngi xaar jour vote bi ngir sanctionner ñiy saaga ak ñiy créer fitna. Tidiane Diallo Abdoulaye Mbow enjeu yi bëri na bëri goo xamante ne tax na ba tey ji coalition yi seen biir ñu am déggoo. waaw effectivement parce que tamit euh, enjeu yi lu tax mu bari dakaar euh, dafa nekk li nga xam ne moo di capital Sénégal Dakar dafa nekk une ville prestigieuse et par rapport ak li nga xam ne mooy euh, mooy moo nekk biir Sénégal ay par rapport au reste du monde parce que boo koy xoolee itam lép li nga xam ne moo di bànqaas boo xam ne bànqaas bu sosoo sosoo la si organisme yi ambassades yeeg yëpp daanaka biir Dakar la nekk de ce constat là da ngay jàpp ni Dakar itam du point de vue de la représentativité moo ëpp lii nga xam ne moo di doomu aadama lii nga xam ne tam moo di poids électoral Dakar itam moo ko ëpp ba tax na dans le jargon politique sénégalais dañuy faral di fàttali ne ki ki ki gañ Dakar gañ les élections mm-hmm. donc boo jëlee loolu yëpp en compte et par rapport li nga xam ne moo di organisation internationale yi nga xam ne collectivités yi ñoo ko bokk ville yi ñoo ko bokk da ngay gis ni Dakar de maire de Dakar loon donc loolu yëpp euh, prestige prestige boobu itam moo tax tey jii nii ku nekk day xëccoo di bëmbaxante ngir mën a gañe Ndakaaru mhm. parce que itam comme ni ma ko waxee rek Dakar fu mu nekk la Dakar lu muy représenté la ba tax na fu mu toll nii defe naa ni gañe Dakar moo gën a soxal coalition boo gis mhm. euh, euh, ne moom askan wi sax ñu ngi naan seen intérêt képp moo fi moom lañ fi nekkaat en doy na waar Fatima manœuvre yi bari na comme ni ko ab Ablaye Mbow rappelé léegi Dakar dafa stratégique parce que c' est plus de 4 millions d' électeurs. Mm-hmm. Dakar aussi dinañ am plus de 3000 conseillers yoo xamante ne nii war nañ ko fal donc sans compter ak yeneen enjeux yi nga xamante ne nii kenn mënu ko négliger boo gañee dakaar euh, teg ci Touba leneen loo ki teg yaay gañe Sénégal. Mm-hmm. donc tey vraiment gis nga li xew ci coalition Yewwi Askan woowu. Mm-hmm. ak li nga xam ne ni la ñu nemmeeku ci candidature Barthélémy Diaz ak bu Soham Wardini nga xam ne fi mu nekk nii Khalifa Sall gisuma ko mais dafa nekk ci dilemme bu grave. te bu ñu delloo encore une fois ci circulaire bi nga xam ne ni tey jii nii moo waral coow li ñoom dañu jàpp ni euh, coalition euh, wal wattu wallu Sénégal coalition taxaw Sénégal. Mhm. ñoom ñoo war a arbitrer ci diggante xam ak Barthélémy Dias. Mhm. su ko defee ñu jël loolu candidat candidature boobu la ñu war a jël nag ñoom yóbbul ko yeewi askan wi mais gis nga li nga xam ne ni circulaire tamit euh, ñoom ñu nekk yeewi askan wi li ñu leen tontu donc encore une fois lépp rek ay manœuvre moo ko lal comme ni ko ñëpp xamee tey dakaar la ñuy xëccoo Dakar la ñuy calculer euh, moo tax euh, benn Bokk Yaakaar ba léegi ci seen candidat kenn xamagu ko ñoom it ñu ngi ko denc en attendant peut-être que situation bi di évoluer mais encore une fois tey dama jàpp ni nekkinu Dakar waay dafa war a changer nekkinu Dakar waay dafa gën a war a ñoŋ dëgg yàlla ville bu Dakar c'est vrai que def nañu ay jéego yu am solo ci wàllu éducation ci wàllu santé bi rien que hôpital Abass Ndao bi euh, mairie bu Dakar ren ñu ngi wax ni plus de 200 millions de francs euh, euh, mm-hmm. donc encore jéego yi dafa gën a mën yokk su ko defee ñun dëkk Dakar sentir ni vraiment acte trois la décentralisation bi ñuy bi ñuy bi ñuy wax saa su nekk. Mm-hmm. dañ amal na leen bu baax a baax njëriñ. Mm-hmm. Alaaji wu Dakar tax na coalition yu bëri tas nañ. Euh, xam nga xam nga coalition yi Fatoumata dafay juddu ci ay coalition yi tasul. Mhm. coalition dafay judduwaat fekkaat coalition boo xam ne tasul. Mhm. soo xam wax di nii ci euh, parti AFP la bokk. Mhm. AFP nekk ci benn coalition bu tasagul. mu nekk ci biir coalition beneen di taxawu Ndakaaru bu tasagul. beneen coalition judduwaat bu Khalifa sàll bokkaat mi soo xam toppoon ci moom mu ñett coalition léegi ban choix la soo xam di def. lees si mën a jàpp mooy ci wàllu politique bu ñu fàttali ni Soham moo gagné woon mairie bu Baobab moo nekkoon tête de liste. Mm-hmm. nañu fàttaliku loolu. après ci wu nag ku ne fa ngay nekk comme ni ñu doon maire bu njëkk. Mm-hmm. liste bi mooy gagné ba noppi. ñu soog a tànnaat ñoom conseil yi kuy doon seen maire. Mm-hmm. Barthélemy Diaz nekk maire. Soham nekk adjoint bu Khalifa Sall ci ville bu Dakar. alors Soham nekkul ci l'embarras du choix de. day bëgg ñi mu àndandool ci politique bi leer pour mu xam moom fan lay teg am na ndaje bu am ñu def choix ba noppi. Mhm. am beneen communiqué bu génn génnaat bu annulé waat choix boobu noonu. Mhm. donc leeragul. Mhm. xamaguñu ba tey après Barth ba demee ville bu Dakar kan mooy nekk euh, choix ci euh, yeewi askan wi ci Baobab est-ce que Soham dafay nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci ville bu Dakar. bu kenn wax mënta nekk est-ce que Soham dafay nekk euh, candidat bu Benno Bokk Yaakaar Baobab gi mu gagné woon ay jamono. parce que léegi bul fàtte ni euh, taxawu Sénégal déewagul ba léegi. xalifa mhm. Sall ci la nekk d'ailleurs loolu moo ko boole ak Barthélemy Diaz. bul fàtte ni seen bokk ci biir parti socialiste bi bokk benn bokk yaakaar déewagul mhm. donc bokk dee paramètres yoo xam ni lu am ci tànn fi nekk mun na bañ a nekk mbetteel. Mhm. parce que tey saa boo génnee dem fenn bu ñu la tuumaalee di nga am. cëslaay daanaka doom ju ñibbi kër baayam lay doon mhm. coalition yi dafa am yeneen i juddu yoo xam ne rayul coalition yi fi nekkoon mhm. mais maa ngi jàpp ba léegi ni ak calcul bu mu mën di doon mhm. kuy calculer pour foog ni soxam du am fenn fu mu jëmul la fu mu teg tànkam juum nga xam yàgg na ci politique xam na bu baax fu muy teg tànkam li koy firndeel mooy kenn ñi meegul a jël décision bu leer moo tax annulation yi di am ak yooyu en nañ xaar ba ci kanam ñu xool fu wànnante di mujjee ki gëtëm ñu daal di wax nag ci parti bii di rek bokk bokk gis-gis daal di naa génn eh, ci eh, coalition wallu askan wi mu mel ni nag eh, lañu joxe bokk na ci rek bu ñu sukkandikoo ci porte parole bu bokk gis-gis jàpp ne ne doxalin bu parti démocratique sénégalais moo leen neexul benn yoon moo waral ñu daal di génn ci boobee coalition ndaxte nag dañoo neenal candidature bu Pape Diop naka noonu bu ki nga xamante ne moo di Abdou Bara Dolly Mbacké ñu teewlu ci Moussa Diakhaté moom moo yore seen kàddu. kon suñ demee déposé caution te parti bi bokk gis-gis am na problème bi ñu yëgee nag ni ñoom déposé nañ caution ñun itam ci lañ daje sunu parti ñu ne ma